Sara mbokki Sénégal mbokki Gambi mbokki axlu lamb jamaykee njiital jëm production lépp lu mu leen mës a wax ci lamb rek teg ngeen ci seen bët bërki dém boo njaay ci face à face ba diggante leket ak France diggante building ak Boy Balla ca stadium bu Bakaaw ba ñu ci jógee dañoo ne jam production wàccoo nag mbokki amateur yi mu ne am na lu des nag ndax damaa fa séene tëgg la combat du siècle le 7 mars bi ñu dëgmal yóbbu ko ca stadium bu Serekunda muy combat bu mag ba diggante building ak Boy Balla ma ne mbokki amateur yi keroog ba waa Serekunda mbooloo ñëwee fekk fa waa jabang ca face à face bu building ak booy bàll jàkkaarloowee dañoo ne bile combat kenn du ko lijjanti mu ne bile combat nag le mars laa koy tëgg coow li jeex ko drapeau Rocky Malick Lo nekk maire bu Banjul nekk ku Banjul di tiitaroo ki nga xam ne liggéey bu rëy bi muy liggéey ci Banjul ñépp ci teg seenu bët combat ba mu ne diggante bébé xarañ la bu jëf jël ak amical bu rut muy drapeau Idrissa Ndiaye sëtul ak daawur bi ki nga xam ne diggante Gambie ak du ci xool combat ba mooy dox ci diggante lion noir ak Reug Reug di drapeau mouvement action bu professeur Daouda Ndiaye cinquième combat ba diggante gaf bu yundum mbooloo lay doon ak boy navek bu yuna boobu la ñu duppe drapeau Demba xarañ loo volim bu Ebo Town mbooloo war faa dajeg te max bu Budung Nurat bébé soldaaru baay bu paradise mbooloo war faa dajeg bébé kolobaan bu tali mbooloo artiste bu këlëm dugg kebe war faa taseeg ning ki nanka bu ékiri bakaaw yile combat Anna Diène honorable député Mbaye Ngom di directeur u cœur de ville bu Kaolack Papis Demba Cissé l'international jamaïcain ñan ñooy say partenaire mu ne samay nit yi daaw mooy samay nit yi ren maa ngi ànd ak White House Residence Xelcom automobile Nice and Sick by Pullo ak BMG Property ci wàllu média maa ngi ànd ak Télé Futurs Médias di la TFM ànd ak Wassare Lamb ànd ak Lutte TV ak mboolem ñiy tas xabaar ci diwaanu Gambie ma ne mbokki amateurs yi bés baa ngoog journée bu rëy baa ngoog combat bu rëy baa ngoog a ngoog muy building ak Boy Balla kenn du ma ko nett